jaxal soxna mi jaxal soxna ah lu desati bu ñu paree nag mu ne bu ñu paree nag ñu ñëw ci parure bi oh, géer jox ko géer papa mu ne jox ko mu seet ah, ah, waaw mu ne bu ñu paree nag ñu ñëw ci or bi mu ne ñëw ci or bi ci ngalam bi ci ngalam bi ku ko am moom nga bëgg ah ma ne ku ko am moom nga bëgg mu ne ku ko am moom la bëgg te ku ko amul moom nga bëgg ngalam baa ngi nii mu ne ngalam baa ngi nii xool leen. mu ne ngeen xool. parure baa ngi nii. mu ne ngalam baa ngoog. jëkkëru jeeg ji li tere nelaw jeeg ji. mu ne li tere nelaw jeeg ji. jëkkëru jeeg ji. ngalam li jeeg ji bëgg. ku ko amul moom nga bëgg. ku ko am moom nga bëgg ku ko am moom nga bëgg lépp ci Omaro lépp ci Omaro tala jabaram rek nab jabaram rek nag mu ne ànd ko yaayam nag daf ci def turam. daf ci def turam. Fatou Balde te si ngi nii. mu nekk. sa si mu nekk Fatou leer na. Fatou Balla mu ne leer na. waaw na. am na ko ba yàgg. mu ne oto baa ngi te dafa ànd ak kalpe. tan na gàmbi def ñëw may jabar may oto. ak ko ko papaam. jox wala magam rek jox ko magam wala papaam jox ko yaay ak géer Omaro toj na oto bi dafa maye na bu ñu paree ci oto bi mu ne bu ñu paree ci oto bi ñu ñëw ci kër gi eh! <laughs> waaye Omar daa jël benn na paquet ba nga daa ji woon wax na duñ ko mën a joxe nii xam nga naka la dangaa siyee nii ma siyee nii ah léegi ko daal ne tete kër gaa ngi nii almadi deux almadi deux ci ginnaaw sédiment ci ginnaaw sédiment ci APH bi ci APH bi ginnaaw cinéma mu ne gannaaw almadi 2. almadi 2. ci à euh, péage ci euh, gaa ngi nii. kër gaa ngi nii. baa ngi ne plan baa ngi nii. lépp a ngi nii. lépp a baa ngi nii. baa ngi ayoo ko moom. ayoo attestation lépp a ne kii rek mënoon naa ñëw. ndax man man sama doom la. doomam la. moo ma boppam. moo ko bëggal boppam. moo ma tànnal boppam. ko tànnal boppam. yaayam mi ko jur. yaayam mi ko jur. muy zee. muy zee. mu bàyyi ma ak doomam mu bàyyi ko doomam. ndax xam na ne man bu ma bàyyeeg doomam. nga xam na bu ko bàyyee doomam. dama koy teg ci daf koy teg ci raay bi. ni may def samay doom. mu ne ni muy def ay doomam. noonu laay def Omaro. mu ne noonu lay def Omaro. mu nangu ko lool nag. bëgg ma lool mu ne bëgg ko lool nag. yemalew ma dara yemalew ko dara. barke Serigne Babacar mu ne barke na barke Serigne Babacar. Omaro Omaro. dama koy bàyyi yàlla. ne Omaro bàyyi na ko yàlla. barke Seydina Mohamed. ne barke Seydina Mohamed rawal. lu mu xam dina ma ko wax. mu ne Omaro lu mu xam na ko ko wax. fu mu jëm dina ma yóbbu. fu mu jëm na ko yóbbu. lu ma ko ne nii su nee rouge la mën na ko bëla mu ne su ko nee rouge la mën na ko bëla la mën na ko comme bëla la mu ne muy xale bu am jom xale bu bëgg ndayam xale bu bëgg ndayam xale bu bëgg ay mbokk xale bu bëgg ay mbokkam xale bu teral ndayam xale boo xam ne dafa teral ay ndayam li muy def ci biti mu ne li muy def ci biti biir néegu ndayam la ko njëkkee mu ne biir néegu ndayam la ko njëkkee ndax bu ko ko jë bu fa njëkkewul woon mu ne bu ko fa njëkkewul woon bu ko defee ci biti bu ko defee ci biti mu ne ko geesul dem def mu ne ko ne ko geesul ko dem samba àllar mu ne kër dafa toog papa mu woo ko papa mu woo ko di ko ñaanal ba muy bay jóg koy ñaanal bay jooy. 3 millions yi ba pare. mu ne bi ñu joxee 3 millions yi ba pare. léegi ñu ñëw ci oto bi. mu a eh waaye ndaw Samb. <laughs> oto bi 4-4 dolce la. mu ne oto bi 4-4 dolce la. 7 places. ñaata. 7 places. mu ne 7 places la. te mu ko may. mu ne te mu ko may. daf cee def turam. daf cee def turam. Fatou Balde mu ne Fatou Balde. ndax du ñu doyee ci yéen. mu ne dañuy nuyoowaat ngir doyaluñ ci yéen. waaw duñ doyee ci yéen. mu ñu ñëw ci bi may bu njëkk bi. waaw. may bu njëkk bi mu ne ñu ñëw ci may bu njëkk bi. xaalis la. ñaar fukki junne cent mille. CFA. CFA mu ne deux cent mille CFA. trois cent mille ayoo. trois cent mille ayoo. mu ne seen goro bi. quatre mu ne quatre cent mille. ci ayoo. cinq cent mille. mu ne cinq cent mille ci ayoo seen doom seen goro. six mu ne six cent mille ayoo seen goro seen doom. mu ne 700000 si ayo seen goro seen doom. 800000 mu ne 800000 si ayo. 900000 mu ne 900000 si ayo seen doom. 1 million. 1 million newal. daa jëli benn paquet ba nga daa ji woon du xam la classe, l'élégance et le raffinement, y a pas mieux que Dia Une boutique de Paris dans la ville de Dakar. Est-ce possible? Bien sûr, c'est possible avec Dia Paris. Ne vous le faites pas raconter, mes chers. Venez visiter notre structure, qui est composée d'une grande parfumerie. Et eh oui, des parfums de classe pour hommes et pour femmes. Tout pour un bien-être Nous avons des bazins Getzner qui peuvent être confectionnés sur place, évidemment par nos propres tailleurs, dans notre atelier de couture, des prêt-à-porter, et même pour les enfants, nous avons une bambinerie pour servir vos petits bouts de chou. Alors, qu'attendez-vous Je vous donne rendez-vous au 5 avenue Cher Ahmadou Bamba, à côté de la clinique Rabi. Le numéro de téléphone 00221 33 824